Bathie Sogue laa tudd responsable politique APR nekk ci ginnaaw Cheikh Abdou Gaynde Fatma tey dañu dajaloo tey ci turu Cheikh Abdou ndax ñëpp xam nañ ni maanaam président Macky Sall la réalisation du siècle moom la war a inaugurer le 20 décembre 2018 tey nuñ ko mën a tudde rek mooy moo ko dige woon def na ko Cheikh Abdou chaque jour day wax ci ay kàddoom digganteem ak président Macky Sall ànd la boo xam ni àndu gor la àndu nawle la euh, reconnaissance moo waral muy def ay action politique ci loolu nag day cëram en tant que responsable politique di jàppale président de la république woo njabootam woo ay xaritam woo ay sympathisants woo ñi bëgg président Macky Sall ñu ñëw daje fii tey pour waajal bis bi nga xam ni moom la président Macky Sall di ñëw fii Touba pour inaugurer Ila Touba bi mu nekk ci waxtu woo xam ni trois heures la sant yàlla militants yi ñëw nañ en mars si loolu nag ñu ngi woo bépp doomu aadama bu dëkk biir Touba parce que li président Macky Sall def. daf ko defal Serigne Touba daf ko defal Mouride yi ñëpp xam nañ ni de 2000 à 2010 ñëwoon Touba màggal jafe woon na. tey waxatuma sax leen mais dafa désenclaver la zone nord et la zone centre ouest loolu mu nag buñ ko xoolee ci xaalis ay milliards la bu ko neexoon yóbbu ko feneen mais mu indil ñu ko fii ci Touba. man maa tuddu Modou Mamoun ñang ambassadeur jiite mouvement bi ñu wax force union fait la force euh, di nuyu mbollem ñi nga xamni ñi ngi ñuy sétane ci turu Serigne Cheikh Abdou ak mbollem population bi nga xamni ñoo nek ci région de rawat na ci département Mbacké waye ci turu mbollem njabootu Serigne Touba gi rawatina nag seex yi nga xamni ñoo ci kër Serigne Touba waye ci turu mbollem responsable politique yi fi nek rawat na nak nga xamni ñoy militant APR yi fi nekk wala militant Benno Bokk Yaakaar solo ndaje mi tey yaakaar naa ni ko ki ma jiitu waxee wax na ko am na solo mooy loo xam ne initiative la boo xam ne président daf ko amoon ci département Mbacké yaakaar naa keroog bi mu teg xeer wi bëri na sax ñoo xam ne dañ ne woon loolu du am ay rêve la woon maanaam gént la woon yaakaar naa rêve boobu tey réalisé na ko moom muy coup boo xam ne yaakaar naa ci ay projet moo ci gën a rëy muy quatre cent et quelques milliards wala ci ci gën a rëy la bokk mu gis ne Serigne Touba mérité na ko Touba mérité na ko mu liggéey ko nag ba mu àgg mu war koo fas yéene ubbi incha allah alxamis le 20 décembre ñun nag ci suñu tur ak ci turu Serigne Cheikh Abdou ndax yaakaar naa boo ne Cheikh Abdou rek mboolem ku nekk ci département bi tey responsable politique tudd nga ko parce que moom la fi président jiital. ci turam nag ak suñ tur ak turu mbooleem ku nekk ci département bi ñu ngi woo ñëpp. man la Abi Diop responsable bu Cheikh Abdou Bali dëkk fu ñuy wax Touba Soura jàkkee sëñ Mbaye Ndiaye. waa ñëw jàppale Cheikh Abdou rek ci bis bi yëpp. ndax yaakaar naa ne bis bi suñ ndam la ñun ñëpp ndamul président la ndamul kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Touba comme ni ko kilifa yi waxee léegi rek foog naa ñu jàppale ko jàppale suñ bopp la. te jàppale jàppale suñu président Macky Sall mooy jàppale askan bi jàppale réew mi ndax foog naa suñu président defal nañu loo xam ne muy Ila Touba bi ñun war nañ koo delloo njukkoon ñun waatu Touba sëriñ si nga xam ne si moom liggéeyul kenn ku may doomu aadama yi ñoo tax ak sëriñ Touba defal nañu loo xam ne ñun dañuy war a jóg ñëw ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba ñëw ànd ak Cheikh Abdou mi nga xam ne yaakaar naa ne bu du fekkonte ni sax euh, dañu wax ne ñun politicien waaye ñun dañuy ay taalibe yoo xam ne dañu topp ci ñu baax ñi nga xam ne ku mel ni sëñ Cheikh Abdou mi nga xam ne Gaynde Fatma ñu ànd ak moom fas yéene ànd ak moom liggéey bi ñun jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñëpp pare nañ ko pour xaar président mu ñëw ñu jàppale ko